طيب لين يوخ وهابس ديكو تودي وهابيه اسكان لا بني اسكان لا اي نيت دي لن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مورون بن بروم خم بو دوندون فلي تي عربي سعودي تي بن غوخ بو نتي نجد موي كوتي رياض القاسم في نتي دي قاسم فوف موي تي سانم مو ديفون بن ريفولوشن تي جامونو بو خم ني دا تي اندون بن امام بو مك دي امام محمد سعود اند تي اك موم ci jéem a taxawal benn état islamique ci jamono yi nga xamante ni xilaafa osmaniya bi décliné na tubaab bi xeex nañ ko ba mu décliné ba li nga xamante ni bi moom la ëmboon ci ay suuf mënatu koo gérer am anarchie bu bëri boo xamante ni am na ci monde islamique bi xilaafa islam islamiya bi euh, dem na bay daanu ba nga xamante ni turki yi commencé nañ dugg ñoom tamit ci nationalisme xëccoog arab yi nga xamante ni ñu ngi doon woote di jëmale ci nationalisme ñoom ñu profité ci loolu taxaw ci état boo xam ne ñu taxawal ko ci kaw al alquran ak sunna defar constitution boo xamante ni dañ ko concevoir ne ci kaw alquran ak sunna lañ ko takk taxawal ak ci ngiru alimam ahmad ibn hanbal mooy ne alquran ak sunna lañ ciy àtte comme ñun suñu constitution ni ñuy waxee ci suñuy première ay band yi nga xamante ni wala loi yi nga xamante ni moom lañ ciy bind li ñuy njëkk a wax mooy ne constitution bi ci lay laïcité lañ ko tabax ak nangam ñoom seen bos ci lañ ko njëkk ci lañ ko bind liñ njëkk a wax mooy ci alxuraan ak sunna lañ ko tabax ci état bu mel noonu ñu taxaw ko taxawal ko tamit ci kaw tawxiit muy fexe ba yi nga xamante ni duggoon na ci biir julliñ jaxasoog ñoom ci ay pas-pas yu baaxul ci ëppal gi ñu ëppal ci ay nit ñu baax te boo xoolee shirk daanaka fu mu am rek loolu moo ko fay indi mooy comme shirk bi nga xamante ni moo ñëwoon ci jamono yonente yàlla noox bi nga xamante ni ñi ngi wax naan laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaan wala yaguutha wa yaquuqa wa nasra wa qad adallu kathira abdullah ibni abbas radiallahu anhuma ne woon ñooñu ay turu gaa yu baax lañ woon ñu daan dund ci jamono buñ demee ba faatu seytaane ñëw fexe ba nax nit ñi defal loo leen ay statut yu leen di représenté ñu wax nañ leen di symboliser pour di leen fàttaliku ñu dem ba ñooñu seen i sët ñëw xamatuñu dëgg-dëgg li taxoon seen i def ko seytaane ñëw fexe ba ñu jaamu xërëm yooyu ci la doomu aadama yi tàmbali jaam kon jaamu ay xërëm ak la ci jëm ak mbiru yu mel noonu nga xam dafay nekk lu yàq wéetal yàlla di yàq tawxid li ci ëpp nit ñi ñu ngi ci tàbbi bu ñu commencé di xaabaabal ak di ëppal ci nit koo xamante ni jàpp nañ ne ku baax la léegi loolu demoon na ba affecté trop monde islamique bi ci jamono jooju ci ne jullit ñi seeni pas-pas feebaroon na moom ci côté xam-xam mu liggéey ci loolu bind ci ay téré yar ci ay nit jàngal ci ay nit sañ ci ay dar fexe ba taxawal état bobu nga xamanteni mom lañ tuddé arabie saoudite gënon na mak sax ni mu tollu ni ndax après dafa daanu bi mu daanoo amna après lu ci wàññeeku wat ñu taxawalat ko mu 3e fois bi ci la nek arabie saoudite bi mu nek ni mais bu ñëk ba gënon na mak ni mu toll ni ci liñ ko tabaxoon moy àtte wo alcorane ak sunna léegi nag ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo am ay contentieux seen digganteek woote boobu nga xam ne Muhammad ibn Abdirahab woote na ko te jëmale ci alxuraan ak sunna jëmale ci tawxiid wéetal yàlla sori lépp loo xam ne bokkaale la ak di ëppal ci mbiri jaam ñi ba di leen jox ay cëri yàlla am ñu ko ci mere mere bu tara tara tara tar ci loolu rawatina état biñ taxawal dafa ëmb ñaari dëkk yu mag te am solo ci jullit ñi mooy Màkka ak Madina ñi ko ci mere ñenn ñi mooy turki yi turquie bi seen xilaafa daanoo li taxaw place am démocratie la Moustapha Kamal Atatürk moom moo ko symbolisé ak les jeunes turcs yi nga xam ne moo doon seen étudiants yi nga xam ni benn mouvement la boo xamante ni dañ ko mayoon doole et que ñoom li ñu doon woote mooy comme li ñuy doon wax sànq wàllu laïcité ak démocratie ak ci jëm ay jeunes lañu utiliser utiliser benn mouvement de jeunesse jëfandikoo ko fexe ba déstabiliser seen xilaafa gi léegi taxawal état boo xamante ni état laïque la démocratique la Turquie ñom kon mbirul islam yi teelatu len mais dañ japp ne ñele dañoo contribuer ci li tax ñu perte sen hégémonie bi ñu ci monde islamique bi ndax ñom ño yoron khilafa gi et que lolu metti na len règlement de compte yoyu taxone ñom Turquie yi ñuy bind ay livre di dénigrer état islamique bobu nga xam taxaw na Arabie Saoudite def ko sen genre wujju ak sen genre non di bind ay wax yu ñaaw di ko wax di ko jëmale si ñoom naan anglais yi ñoo nekk seen ginnaaw dañ leen lii dañ leen a laa di wax genre wax yu mel noonu ba ñenn ñi gëm loolu te lépp ci ay tuuma la tegu ñeneen ñi ci des mooy ñi nga xam ne ci wàllu pas yoon bi nga xam ne état boobu jël na ko ci yoonu ahlu sunna manhaji ahlu sunna neexu leen nga xam ne ñoom ci wàllu tasawuf la ñuy yëngatu ak la ci jëm loolu tamit indi ab benn firange seen diggante ak ñoom ñoom tamit ñuy dal ci kaw état boobu noonu di leen dénigrer ñeneen ñi ci des mooy chiite شيتي نيوم غيناو بي لاني ام دوله موي غيناو بيغا خامتاني شاه بو ايران دانيل نان كو سين ريفولوسيون بيغا خامني خوميني موكو جيتي وون نيوم تي مي تاخاولي سين ريفولوسيون بي دانيو نييو ديف عربي سعودي سيني وجو جيل نونيل بو ري جامالي كو تي نيوم نينن ني سي ديس جارول مولين دي تود موي ني نيكون تي دك بوبو دي جورداني موي هاشمي يون ييغا خامني سين مام دي كينتانتو دي شريف مكه nga xam ñoom dañuy wax ne ay shurafa lañ yu bokk ci kër yonante bi alayhi salaam amoon taxawaay bu doy waar bu ñu amoon bu ñu nekkee màkk amoon taxawaay bu doy waar bu ñu nekkee foofu ñoom tamit bi nga xamante ni foofu noonu xilaafa osmaniya gi daanu na dañoo obligé ñu génn leen fa ñu jóge fa dem toog Jordan yi taxawal fa benn état seen état boobu nekk as état su ndaw boo ko comparé ak Arabie Saoudite loolu tamit indi benn genre jalousie ak firange seen digganteeg ñoom yooyu yëpp boo ko dajalee dans son ensemble moo indi dénigrement boobu ngay dégg kenn du ñëw. di wax ci benn état wala benn réew ne seen lépp parfait à 100 pour cent mais ci wàllu jëfe diine ak dund ko ak pratiquer ko ak appliquer ko ci façon bu bu bu bu bu bu rigoureuse bu tegu ci ci ci ci source yu wér ci alxuraan sunna amul état bu mel ne arabie saoudite ci àdduna bi naam dëkk boo tudd di nga wax ne am na lu ca des am na lu ca matul ak a neexoon lii demee ni ak a neexoon lii demee naa loolu dab depuis bi fi xilaafa islamiye gi nekkee ba léegi noonu la mbir mi mës a demee waaye nag du tere ne nit bu gisee dëgg day wax dëgg te yàlla tax man fa laa jàngee faraluma kenn bi ma fa jàngee bañ naa ko ba bi ma fay jóge dama def lu ma mën pour gaawantu jot samay diplôme pour ñibbi ci Sénégal ndax ñëw liggéey sama réew moo ma tax a moo ma ñor dew ma di toog ci réewu kenn ak lu réew ma neex neex neex neex ci saa si dañuy jël suñuy diplôme ñibbi si ñëw fii situation bi metti na galère bi metti na mbooye bi tàng na pënd bi bëri na mais suñu réew la comme mënuñoo soppi réew ñu ñëw soppi suñu réew munuñoo soppi réew ñu soppi suñu réew metti na mais bu ñu paree suñu diplôme rek ci saa si dañ daan dem di def ay démarche di lijjanti suñuy këyit ba ñiñ doon dem ci ñoom dañu doon laaj ne ñu yéen lan la lan moo tax ngeen di ñëw di yàkkamti ni bëgg a gaawantu jot seen papier pour ñibbi lan la lan moo nekk seen réew ñoo ne leen dara dañoo pare dañoo bëgg ñibbi rek pour xam ne du damay wax loolu ngir dara mais dëgg moom la yàlla bëgg maanute moom la yàlla bëgg ñi leen di critiquer ñu ci bëri li ñuy wax c'est pas objectif ñenn ñi dañuy wax c'est pas sax sincère ndax dañu wëlbati ko demaat foofu bu ñu fa amee ay njariñ mel na du woon ñoom te loolu xam naa ci lu bari